mukarraman bi qirat tahaati wa sadadi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mbokk yi yéen ñi nuy déglu te dinu seetaan ci sunu site bi ñuy wax moom acte point comme ñu ànd ak yéen ci naafilay weeru koor yi ñu di ko jukkee ci téere sëriñ son yi bu mbàkke bi ñuy wax xoratul xay ni tey nag mu tolloo guddig ñaar fukkeel ak ñett guddig ñaar fukkeel ak ñett ñeent rakk la nit ci julli rakk bu nekk ñu jàng faatiya ak isaa jaa nasrullahi juróomi yoon ak xul huwallaahu juróomi yoon ñu baamtul leen ko guddig ñaar fukkeel ak ñett ñeent rakk la ni ciy julli fatiha la ñuy jàng <coughs> ak isa dia nasrullahi juróomi yoon xul ko wallaahu juróomi yoon loolu mooy doon naafile gi ñuy sant mbokk yi nga xam ne ñu ngi doon ànd ak ñun te di leen gërëm ñu del si ya ayyuha alladina amanu kutiba alaykum asiyamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquuna ayyaman maadudat ya xayra dayfin ata bilbishri walmadadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi laa zilta dayfan kariman zairan abadan mukarraman biqirat tahaati wa sadadi